jërëjëf Aliou Ba Yacine jërëjëf euh, Makhtar jërëjëf Lom Passe Partout jërëjëf Mame Dieye maa ngi lay nuyu jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu ñu ngi fii ci rue 15 angle corniche ah immeuble El Hadj Iliman Ndour euh, RFM 94 point 0 noonu nga ñuy euh, bàyyee xel noonu la ñu nekkee tamit ci suñu page Facebook RFM l'officiel seen journal des faits divers xalaas Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou a Ndiaye Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar di lay ziar ñëpp di wax ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ne am jàmm day leen lañ commencé ti waaw Ndiaye. semaine bii nag laa koy mujjee wax. Mm-hmm. waaw man dinaa bind sama lettre de démission ci xalaas bi. Mm-hmm. ñëw déposé ko. Mm-hmm. su fekkee dakkul. foofu laa mën a am nga ci plein droit de. maa ngi leen nuyu Ndiaye. li di wax rek ñoo ngi jéggalu. <laughs> lii de lii de li nit mënul dara. waaw mais mënuñoo dëkk ci ñoo ngi <laughs> lii de Ivan eh, lii dafa bokk ci li tax. xam moom su wàccee day nelaw Sénégal neex lii. moom su wàccee day nelaw. Hmm. nga woo ko doo ko jot. nelaw nit ñi man nii la ñuy woo. di kaas bu ñu paree nga laaj ma bu ñu wàccee kii fu mu nekk. waaw ah. ah, loolu mënu ko wax ci temps yi nelawatul de. nelaw. nga dégg wolof naan ku ndóbin rey sa maam. soo gisee abaa dàq. waaye <laughs> tey de Aba moom ndóbin benn la ñu. kii Instagram bi nu mu tudd Aba la. abaa ndobin abaa <laughs> no stress nañ la nan la na la auditeurs yi xool Yacine Pouy abaa mii yu ñuulam yi laa bëgg mu feeñ abaa Yacine léegi olof waxatul ku rey sa maam boo gisee lu ñuul daw de mais ku rey sa maam boo séenee abaa daw mais man sama ensemble may luus laa def mu woyof ci tàngaay bi ma sol ko mais mais mais heure baa ngi dem de. fan la problème bi ne ay te yow fi ñu toll nii ñëpp teew des dafa am nit ñu may woo. di wax ne li waa kër Serigne Touba Fall indi mu di gàmmu vite fait bi dañ ciy bëgg. 77 555 11 11. 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 441 06 98 vite fait. xam nga cuuraayu bant lañ fi doon indi nga koy taal mu lay tàggale ak yow. Mm-hmm. amul benn problème. Mm-hmm. dañ cee teg pompe boo xam ne. ana pompe ba. Euh, jotagu leen ci. Ah. ay ca Modou Tine lijjantil pompe yi. Ah. voilà moom nawet bi moom. Ah. Euh, na gars yi di ngànnaayoo vite fait mais am na également benn crème boo xam ne sa yaram nga koy diw. yoo du la jege fenn. Mm. boo yeewoo sangu ji say nelaw dafay neex. amul saar tamit. saar woo xam soo ko taree du a kii. ah boo de jànguma ko ci alxuraan. ñoom ñoom war nañ koo xam. ah, ah xëy na ñoom dinañ ko xam ñu waa Kër Serigne Touba euh, établissement waa Kër ah, Serigne Touba Fall et frère. Ah. KSS Trading moom it di euh, euh, Kër Serigne Saliou indi fi bazin BK Gold. nga xamante ne ji gars yi moom la jël ci tabaski ren gi bazin BK Gold yi gars yi jël ko ci tabaski ren gi ña marché Ocass rue Euro seen numéro téléphone 33 978 03 65 77 549 98 magasin Gold. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Ah, kenn du ñoom déedéet déedéet yegg si na eh, te maa ngi koy wax te du ma ci taay di ko wax nee naa leen ñoom ci fukkeelu piis bi fukkeelu foot bi. man de maa maa jotul. ci fukkeelu foot bi. jour boobu fekkuma fi de. <laughs> ban jour. bañ koy joxe. ma dégg la ñu jox la fii ba man loolu bu ñu enregistré. eggal parfum de classe collection parfum de classe Bayas. waaw le parfum de l'année. waaw. de l'année 2020 waaw te ñi ngi yàgg ragal ne danañ am yàgg ak moom 2021 ndax parfum bi baax gu mu baax ñi dañuy def parfum pour góor ñi def parfum pour jigéen mais collection parfum de classe BS am na pour góor am na pour jigéen te marché yëpp mën ko faa am yaay euh, ban waaw jeex na ku ci topp jeex na fi ñu toll nii yow la ñuy xaar déglu mu di gaay la mu def ayca mu di gaay fii si caaro yi gaar ci marché caaro yi dañoo amoon fi benn natt bu ñu doon def benn natt du kese du saaru natt sax parce que saaru bëccëg la boo xam ne benn góor góor góorgóorlu boo xam ne moo yoroon fii place am defar ko léegi nag defar yooyu trans transfert de sang la doon def mais day da si boole waale jël ay xale jigéen di leen liggéeyloo xale jigéen yi nag léegi xale jigéen dañuy wër si marché bi di encaissé nit ñi ñi koy dénkaane suñu xaalis waaw kenn ku ne loo mën rek ngay dénkaane ñi mille francs ñi deux mille cent pas xaalis li nga man léegi nag commencé bi ñu ko commencé yàgg na ñu ngi koy def di ko def ay ay weeri weer di ko def mais léegi nag euh, jamono bi ñu toll nii dañ ko def si 2019 bi daal fin 2019 bi dañ am problème léegi euh, dañoo joxe suñu xaalis waaw ñii ay weer weer dañ fa dugal ñii dañu natt ay dix mille ñii quinze mille ñii euh, cinq mille ñii deux mille ñii trois mille ñii mille francs léegi nag ñu toog ba mu yàgg jékki-jékki waa ji ne mes dem ak suñu xaalis foto boobu mu envoyé leen moom mooy nekk noonu Mouride Gueye lañ koy lañ koy wax Mouride Gueye lañ koy wax ñu ne ñu ngi toog ñu ne def nañ ko parce que xale jigéen ñi mu doon yi nga xam ne ñoom la doon liggéeyal ñoom la doon liggéeyal ñi nga xam ne ñoo doon wër di encaisse xaalis nañu ñoom ñu ngi nii fu mu toll nii dañoo wër a dox dox ba sonn fu ne dem nañ fa. dem nañ police dem nañ lu ne def nañ ko def nañ déclaration mais dara ba léegi da dara doxagul dara sotteegul ci waaw di booba léegi nag ñu ngi toog di ko xaar te xam naa ne moom tànk jant suuf yàgg yàgg dañu dinañ daje. waa gi nag Mouride Gaye lañ koy wax góorgóorlu Mouride Gaye waaw ñi gën koo xam si Matar Gaye Matar Gaye lay mooy turam dëgg Matar Gaye moo nekk noonu waaw fii la nekkoon fii yi mu mujj na nee na mes waaw kenn gisatu ko ay téléphone am kenn lu koo dégg. waaw kenn moo am ci moom benn information. waaw ñu xam ne ñun am nañu lu naqari du man dong nag. waaw du man dong nag c'est na man maa mën a wax. ñun ñoo nekkoon suñu client ñun ñoo ñoo lañ a xam ci moom mais moom moo nekk patron bi moom. léegi ñun xale ñëw si ñun récupéré suñu xaalis bind suñu tur dem déposé bu ñu soxlaa suñu xaalis xale jigéen nañu laaj jox ñu waaw léegi nag moom bi muy def loolu moom moom xam même xale jigéen ñi sax na seen xaalis waaw moom xale jigéen yóbbaale na seen xaalis te léegi xale jigéen ñoom ci marché bi lañ nekk mais moo tax xale jigéen ñoom def nañ seen plainte ñun bu ñu demee si ñoom la ñuy dem léegi ñoom ñoo dem def seen plainte def nañ def nañ seen def nañ dig waaw Murit gay lañ koy wax ñu koy gars yi di ko xam ne góorgóorlu mais Murit Gaye la tudd waaw moom nag si caaro yi fii la nekkoon waaw Murit Gaye lañ koy wax ñu bari Murit Gaye lañ xam mais mataar gay mooy turam Matar Gaye la tudd Matar Gaye la tudd. waaw fii la nekk si caaroy gaar fii loolu yëpp def na def nañ ko parce que lim li ñuy li yóbbu si xaalis mën na ay millions et millions la yóbbu si xaalis fii si marché bi. xalaas. mel ne gaañu tabaski gi dañoo aalu de. Hmm. ci yi. waaw mais fi mu yaa ngi takkar naa si takkar naa si gu doy waar. Mataar def na leen ko. mu Murid gay moo ñu naan ko Mataar gay ah nañ kii nañ jàpp ci Mataar. laal Murid Gaye waaw. waaw waaw. waaw. Ah, yëpp ci Matar ah, kay waaw Matar ah, Matar yi dañoo doy bi yeewu na ay portable am beneen Matar ba tànk ba ma koy soox ba tey beneen Matar ba li bi dajale woon yëpp yóbbu na ko. déedéet <laughs> le mois baa ngi lay dégg ñi dëkk moom sama waay la. Matar baa ngi lay dégg kooku moom <laughs> moom mooy exception de Matar. Ndiaye du sa waay Matar maxulutul. <laughs> du yàq waay kooku maxu Fatick la tudd. <laughs> maxu wala xuu. kooku moom sama waay la. <laughs> Eh, way wuy këpp gaal duñ koy def yow ñoo ngi kaañoo <laughs> mataar yi nga ñuy. nga indi waaw man doo nitu dara lu ko neex la def. wuy ma ñi dëkkee Dakar. nee nañu nañu moytu Scat Urbam fii dend Pentola. waaw fa la agresseur yi def siège jamono ji. Ah. nee nañ gars yi ñu ngi. rond-point boobu nañ beneen bi ci topp mooy dafa am benn waay boo xam ne. Mhm. nee nañu euh, Dame Badiane la tudd. waay Dame Badiane voilà mooy président. Mhm. marchand ambulant yu Petersen. Mhm. dafa woo Malal Junior jaaj mu ne ko. dañoo jàpp benn sàcc. boo xam ne dañoo fekk ci moom mbuus gu def xaalis bu bëree bëree bari ñoom sàcc a jàpp nañ ko. ñoom ña ko jàpp. jël nañu mbuus ga di wër borom mbuus ga. borom mbuus ma waaw borom mbuus ah. yi kay xaalis bëri lu mu sàcc la koy dugal. ah tout cas daal nee na. Ah. ñi nga xam ne njoxtu nañu ne ñoo moom loolee. wala léegi ana sàcc ba léegi. ah loolu nag laa jox xaalis bi dañoo waroon a jël bi yóbbu ko police yóbbu xaalis bi. mais est-ce que defuñu ko. waaw mais moom daal nañ ko woo 658 85 27. 658 85 27. Dame Badiane. waaw ku ci jéem a tiriyaan nag di nga xam ne ambulance moom duñ ko tiriyaan. ñoom ba pare Ndiaye. waaw waaw ay ay ay ñoom li waroon a def mooy soo sàcc soo ko jàppee. mu yor xaalis wala ak lu mu mënti yor jël ko ak moom ak la mu yor yëpp yóbbu jébbal ko wóoruma ndax def nañ ko de moom noonu lañu ko yónnee xëy na def nañ ko ba pare nag di wër boromam voilà mais def nañ jëf ju rafet daal voilà def nañ jëf ju rafet ndax fi réew bi tollu jamono ji uh-huh. nga jàpp sàcc mais nag suñu jàppee sàcc ba pare yóbbu ko police ba pare jël mbuusu xaalis ba téye ñi ngi ci pro ñi ngi ci loolu loolu gar fa garaaw de loi bi da koy tere waa d'accord mais comme yëglu nañ rek. waaw ça veut dire que kon ña nga ca yoon xëy na ñàkk xam moo tax bu dee tëye nañ bus bi ñu tëye ko. Hmm. waaw waaw waaw mais man fi may waxee mooy euh, agresseurs yi euh, fan yi ni ñu mel dafa taxar naa se loolu ci réew mi donc man damay euh, interpeller ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur mu defaat tuuti euh, ci mbedd mi yenn policiers yeeg euh, yenn. comme couvre bi ni meloon ni mu meloon pas. pas ni mu meloon mais mu xaw a am ay plan yoo xam ne ay yenn place yoo xam ni da dafay ñoo xam ni. nit ñi leen génne woon ci couvre-feu ñu génne leen ko noonu ci gi. nit ñi di leen di leen gis ñu nekk ci marché ci allées yeeg yooyu parce que gars yi dañuy këf daw. nga yaakaar ne ni ngeen ko xamee ñoom xamee wuñ ko noonu. xam nañ bañ xam yaakaar ne amuñu plan de sécurisation. ah ku wedd na ma ah, laaj gi ci de nuñ dafa jàpp fetal yaag bale fetal guy mbind yow kay fi moom kay da naan ñun nañu ñaan li askan yu bëgg. Mhm. moo ñu taxawu leen seenu kaaraange jamono ji. Mhm. ñu gën cee taxaw ñun ñu jottali ko. Mhm. Ah. tabaski gaa ngi ñëw. gaa ñi eh, tëj nañu leen ba tijji leen ñu war a wuti lu ñu tabaskee. neexul na nga tuñ tuñi ba am loo war a yóbbu sa kër. ab ah, samba buy jaar fële nangu ko ci yow. c'est que léegi de xaalis dañ ko war di li gàddu un million wala cinq cent mille ci sa loxo dafa xewi. réew mi avancé na am na yeneen i ab bànqaas yu fi am yoo xam ne fa nga dugal sa nañ ko def wala ñu koy kii nit ñi sax soo demee ba yegg. lu waxaale portable bi lii lay jar. nga fayee noona. wala ñu koy envoyé nit ñi sax. wala nga yónnee ko man kay bu ngeen ma doon may léegi ma wax. Euh, du la ko du la ko may nag. <laughs> léegi nan dem. Euh, ah? <laughs> Ndiaye baax na Binta ah, day xam Binta de. ah Binta xaritu waa Sonatel. Binta day xam de. Ah, <laughs> euh, kii benn waay la boo xam ne Jibril Mamadi Soumaré la tudd. Mhm. dañoo for portefeuille am. Mhm. boo xamante ne ji identité mi ngi ci ak xaalis. Mhm. na ko ñëw jël si. ba am woo passe partout ci 77 157 17 17. parce que lii moom bu réeree tabaski gu na ko ñëw jël si benn porte monnaie portable na ginnaaw yéen ñaar ko doon tuuse ay portable tuuse woo leen moom ba samedi. waaw xam ne xalaas lundi ak mardi moom bu amul rek. ñoom la yaa tuuse benn njaay tuuse ko benn. a am yu gën yooyu parce que moom ay téléphone moom moo a gën suñu yos ndax moom lii xalaas yëpp moo koy dem di ko enquête di ko indi fa lay dem di indi xalaas auditeurs yi déglu am na ñoo xam ne <laughs> ñu génne benn téléphone joxe ko ne am joxal li passe partout keneen génne ne joxal passe partout mu ñaar mu yokk di liggéey mais loolu du leen wàññi dara. waa lii def ma bañ ko. waa xaar loolu Assane Gueye moo ko war a def. non non non non non non non. waaw xaar xaaruñ ñëw Assane Gueye ko war a jëndal téléphone. <laughs> ndeysaan dañuy doxantu ba dama benn kaa bu lëj laa leen indil. Hmm. waa ji da doon labat benn xale bu jigéen fii ci Sénégal. Hmm. gisanteeg moom benn yoon. Hmm. dellu takk ko. fu mu ne fu mu nekk man réew. ma nga Allemagne bi mu takkee ndaw si waaye nag ca ndoxaan nga ma ngi ko doon jàppale ci biir takk gi. bi mu ko takkee pare ba sey bi am ay huit mois neuf mois du yóbbu na ko fi auto école tabaski mu jox ko xaalis maanaam waa ji li ko li mu defal ndaw si yëpp da koo bindoon. mais jën bañ sëy bi amee waa ji consommé gul. foo nu raayul deful dara consommé gul dara. Hmm. ndaw si ni ko nobatuma la may ma sama baat. waa ni ko d'accord waaye kon li ma la may yëpp danga ma koy delloo. ndaw si ni ko deux cent cinquante mille la la l'islam wax mooy takk gaag yooyu xamu ni ñu ko waxee noonu moom lañ la war a mo delloo waaj ji bi mu calculé un million et quelque la def ci moom ci durant bim ko doxaanee doxaan gu gàtt gi ak takk bi ak sëy sëy bu gàtt bi waa ji dafa ne leen liste ni lii nga may ngeen may fay ndaw si bañ wa ndaw si nag dafa am magam bu góor boo xam ne moo nekk fii mooy kilifaam. Mm-hmm. waa ji xamante nag euh, magam bu góor bi ba dugalante mun ko Allemagne dafa am fii liggéey. dinaa ko sama patron mu defar a contrat yow da ngay jël 2 millions nga dugal ko sa compte nga génne ko dugal ko ci sama compte waa ji fereeru jabar ji jël 2 millions dugal ko ci compte am <laughs> ko dugal ko ci compte waa ji te ne Allemagne ka ne Allemagne bunt yëpp bloqué ko ci téléphone bloqué ko fépp ba mënu waa Ndiaye déglu benn problème euh, ak benn waay quoi waaw parce que waay bi bon sama rakk bu jigéen la euh, takkoon ba jëf defoon nañu kii bi quoi Euh, maye nañ ko buñ ko maye ba pare bon dem ci biir sama rakk bi nee na bëggatu ko yaa nga dégg bon en fait day euh, parce que génn nañu war gar bi deux cent cinquante mille bon léegi nee na bom comme sama rakk bi nee na bëggatu ko léegi na ko delloo li li mu ko doon dépensé yëpp mu calculer affaire bi bo mu nekk euh, un million six cent quarante trois mille mais comme que man bon affaire confiance dugg na suñu diggante bon benn jour mu daal di ma woo quoi nee na mu nekk Allemagne Allemagne la nekk nee na bon am na foo am na contrat bu mu gis waxtaan na patron wax dëgg pour kooku mu wutal ma contrat kooku ne ko bon problème bon mu woo ma jour nee na bu fekkente man mun laa lijjante fii ay somme deux millions yooyu. deux millions ma dugal ko ci sama compte su ma ko génne ma dugalaat ko ci kontam après mu defal ma euh, procuration waa pour ma retirer xaalis bi deux jours ma ko dugalee ci compte ba léegi bon nanguma delloo xaalis bi nanguma delloo xaalis bi te xaalis jàmbur la nee na parce que sama rakk bi war na ko jox xaalis ba def naa bo ba mënuma fexe boo jot sama xaalis te man maa ngi nii fu ma jëlee xaalis bi borom xaalis bi moom mooy topp guddi ak bëccëg nee na fii ak tabaski ba moom dafa am travaux bu mu dafa bëgg commencé liggéeyam te man maa ngi nii jaaxle naa trop wallahi awuma kenn ku may dimbale wala awuma kenn ku may dimbale te affaire police tamit demoon naa def naa porte plainte depuis jeudi bale passé voilà police centrale maa ngi nii jaaxle wala yenn saay damay toog jooy xawma lu may def aw ma may dimbale voilà bon nee na bo dafa bloqué xaalis bi ndax sama rak voilà moom moo moom moo ko yoreel xaalis moo demee police ñoom ñu ne loolu day mel ni affaire sàcc la waaw daf ma arnaqué parce que man sama yoon warul nekk ci lool sama rak la ameel xaalis du man voilà même demo demoon naa banque xaalis baa ngi ci kontam xaalis baa ngi ci kontam mais moom nangu maa jox ndeke moom kontam sax am woon même dërëm parce que waaj bi wallahi sama xarit la woon yaa ngi dégg voilà bon mais affaire bi jaaxal na ma trop léegi daf ma ne pour ma génn sama relevé di banque bi sax sama relevé di compte ak euh, kii tamit récit récit bu ma versé woon xaalis ci compte ak sama compte yëpp ma yónnee ko Allemagne te yónn naa ko yooyu yëpp daal man daal parfois damay bëgg di gis ay nit ñu ñor. waaw waaw nit ñu ñor xomm. yow waaw waaw moom dana yónnee naa ko. waaw fa la yem da ko ko yónnee bi mu ko ko yónnee kayit yi nga reçu ah. sax da ko yónnee waale waaj. mais après lu ci topp. li ci topp mooy ah, ndaw si waa déglu ma. Ah. ndaw si tey lañ koy takk keneen keneen na koy takk tey. ah waaw. non waa moom li mu def ay recouvrement la def. recouvrement bu la amalee bokk <laughs> waaw. mais lim maye moomu ko de. ah may eh, eh, gu njëkk gi. la koy delloo mais lim maye moomu ko. abaa plat bu ma li ma lekkul du ma ko fay. non ça dépend rek <laughs> fekkee cin lañ ko toggee sa kër la jógee kay di ko fay. cin bëkkul cin bëndul <laughs> nekkoon lu mes plat bu ma. bu ma lekkul du ko fay. mais ku ne eh. ah, ah, eh, ban li mu maye. waaw li mu maye moom ko. waaw ban li mu maye. ci waa ji. waa ji nekk Allemagne. waaw li bu jigéen. waaw moomu ko d'accord fay na oto école ak yooyu yëpp. koo maye. waaw tabaski. da waa ji dafa bind korité. liste bi bindal nañu ko korité soixante quinze mille. tabaski daaw cent vingt cinq mille. oto école cent vingt cinq mille. yooyu yëpp da ko bind ci benn liste ni lii la def ci ndaw si ndekk ndaw si nobu ko da ko doon nax conso bu yàlla yónnoon malaaka mooy wàcc après tabaski di génnee xar yi matul tabaski wala yi lewul. Hmm. yi leb nag. mooy yi lewul rek. Ndiaye déglu kee déglu waa ji. dama ko envoyé message du ma tontu léegi daf ma bloqué ci whatsapp bi dafa ma bloké ci messenger bi aussi ndax dafa am sama nijaay bi moo ko boole woon nee na boo moom yoonam nekku si suy neexee sax boo ñu tëj ma kaso moom affaire am nekku ci yaa ngi dégg am na magam bu jigéen bu nekk fii expliqué naa ko kooku am na benn xaritam bu nekk fii tamit expliquer naa ko kooku mais kooku nee na moom munu si wax dara waaw ndax bu ma doon kii jox xaalis bi moom yëgu ko waaw di ci mun wax dara bon moom sax sama rakk bi moom sama rakk bi jot woon sëy quoi yaa ngi dégg bu muy defee takk bi pare rek bo kooku nee na boo buggutu ko nee na buggutu ko nee na parce que waaj bi day fen ñun defoon nañu tout defoon nañu bon sama rakk bi nangul léegi waaj bi balaa muy takk sama rakk bi muy doon ngoro lu mu dépensé woon ci moom lu mu jëndoon téléphone ci moom waa nee na ba loolu yëpp sama rakk bi nu mu fay ko bon lu ñuy wax bon ñu ne seria daal takk bi deux cent cinquante mille waaw loolu réco reconnaître nañ ko mais à part loolu boo nga doon def boo buggee jigéen waaw ku nekk boo bëggee jigéen moom di ngay dépenser ak moom waaw bu fekkente ta takkoo ko loolu ko war baal yaa ngi dégg waaw mais waaj bi amul xolu yermande te moom mu ngi dugal na ma ci problème voilà maa ngi dama jaaxle trop. non ñoom seen kii bi na yàgg naa ne sax bu ëpp na un an ëpp na un affaire bi wala ëpp na parce que ñoom déggoo nañ ñu xam nga. mu ci duggee bon nee na ma bon moom bëggutul ñun def nañu tout quoi def nañu tout moom xooloo naa ak moom ba jàppale naa waaj bu baax a yaa ngi dégg jàppale na waaj bu baax a baax mais moom gisul loolu yëpp comme que moom ak man bon juboo nañu yaa ngi dégg foofu la ma naxee quoi. xalaas. mi ngoog. Hmm? li ko njëkk lor mooy dafa dugg ci diggante bu mu warta dugg. Hmm. moo leen mayee de. peu importe mais mënoon na faa yem. Hmm. dootoo woon seq ak waa ji loolu. waaw warul egg foofu. parce que xam sax luy problème bi am na ñoo xam ne boo ko seexee moom bu sa rakk nekkee ci problème wala mu dëngoo ak waa doo ci mën a wax. Hmm. parce que lii lii li Matar Seck euh, daan wax ku ñu logal nga logg loggi moo ko jural lii lépp. te xaalis bi moom moo engagé waaye sërëm bi engagé wul. Hmm? mais sër bi nag. ci ay kii moom ci moom li mu wax. sër bi commencé bi bi mu ko tegee soog ni sër bi am na xaalis bu mu génne jox ko waa ji pour jéem fay. ku mu ko jox. Eh, waa ji mag ji la ko jox. mooy ki yónnee 2 waaw mais bu mu envoyé waat de. mais mais dama koy conseillé ne maa ngi koy wax Passepartout su moytuwul waa ji dina li mu li ko sër bi jox waa ji na ko enquête. non non non parce que waa ji wax ku jaral kii la. non bu mu envoyé waat moom na fexe. Euh, sërëm bi di ko jox moom muy téye moom. ba mu mag waaw di di jox ñi nga xam ni ñoom la ameel fii. bu dee nag dafa am lu ci xaw a manqué. Ah. mu jéem a woo waaj ji almaa mu wecc ko. mu complété ko sama gars bitim réew yi laa bëgg. mais am lu gën a yomb sax bu fekkente ne li mu ko doon yónnee am na ay traces. na ko porte plainte heure waaj ñëwee na ko fay. Ndiaye moo gën a yomb. mais ñi nekk fii nag. waaw mais loolu moom da leen di jéem a lijjanti. ñi mu ameen fii waaw mais comme moom am nay yu leer na waa ji xaalis. waaw na ko porter plainte ba koog yoon. waaw mais mais problème ko. fi mu ne nii ka ko loolu da koo teg choc njaay sama gars yu muudu muudu la laay waxal. Uh-huh. yal na leen yàlla may jàmm. la ñuy wut yàlla nañ ko war a am. nañ ko am mais nañ nañ nañ nañ vigilant ci gel yi ñuy doxaan fii ci Sénégal. dañ leen di nax di leen yuus di leen mbaraan yu mel nii lay jur wóorul hmm. waaw yow gel yi gel ban eh, dañuy am nekk fi sincère fi am dañuy am kenn dañuy am kenn fii am kenn fee. xamaloo leen dara. xamaloo leen dara yow yaa ma gën xam li may wax ah. yow yaa ma a aba ah. eh, eh, non non non xam naa sa benn correction parfum de classe Béas KSS Trading Kër Serigne saali borom Bazin BK Goldi ak établissement wa Kër Serigne Touba Fall et frère mi leen indil gamme vite fait mi mën si yoo weñ ak mbóot ñoo leen doon may seen émission xalaas